rafetlaan di beex euh, Sen TV mbokk da leen jàmm si biir la jotaayu xibaar ñu fas yéene ko door ak gouvernement bi nga xam ne war nañu jëm dem bër maanaam dem vacances loole nag dafa mel ni defuñu ko ci waxtu ñu ko war rek mën a ndax ak réew mi toll jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy jànkonteel loolee war naa mën a tax sax ñu jël lekk seen vacances yooyu tekk si suuf te soobu ci liggéey bi du samay kàddu ki nga xam ne xelam dafa màjjëm ci wàll politique mooy ni xam le mm, Pape Diogueye Faye lay wuyoo mu di waxtaanu si Modou Sène njiitu réew mi ak gouvernement am fas yéene takk seen walis dem vacances loolu nag di xew ci jamono joo xamante ni ñëpp a ngi sëngéemu ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy jànkonteel analyste politique bi di Pape Diogoy fay jàpp ne waxtu bi ñu taamu baaxul. que vacances da koy mérité. donc liggéeyuñ fi un an yoo xam ne yi war nañoo mën a dem congé wala dem liggéey d'autant plus que li ci ëpp solo tey jii mooy problème yi nga xam ne yi tey jii waa kaw ga ndox mi ñàkk na jaaxle nañu parce que yàlla ji tawagul. muy problème boo xam ne bii aussi beneen problème mooy problème mu étudiants yi ak problème mu Sénélec bi nga xam ne bii ñëwaat na. loolu tax muy sàkku ci njiitu réew mi mu dellu ginnaaw ci ndogal bi nu mel. ku may interpeller gouvernement bi interpeller le président de la république ñu dimbali ñu wilaay war a soli ñu toog liggéey ba jëmmi jamono donc ñu seetaat moment yi ñuy jël congé. Pape Diogoy Faye dolli ci xamle ne gouvernement bu Sénégal nag warul dem ci weeru ut ci ay vacances ndax période la boo xamante ni nii mbéy day bi man jàpp naa ne mois de janvier mois de décembre janvier ba février ba mars nekkoon na mois yoo xam ne yii yu am solo la yoo xam ne war nañ cee mën a dem congé. dem ci vacances ci jamono joo xamante ne nii daanaka lépp daa tàggatem bi fii ci réew Sénégal situation financière bi nag jaaxal ñëpp ci secteur yu fasantikoo yi nga xamante ni ñoo ŋànk économie bu Sénégal day firnde